yàlla jul ci sant yàlla rek di am mbégte di wax alhamdulilahi rabbil yàlla dogee ne suñu campagne ba pare nekk di wate loolu sant suñu la parce que tànn rek la nekk ak coobareem ñu defal ñu campagne defal ñu pare def gan jàmm ju am ba loolu yëpp ñaan yàlla jàmm ji yàlla yokk ba ngoon yàlla mi nga xam ne ni mooy tànn ak nit mu tànn am mbégte lool ci nag xam ne bi ma nekkee xale dama daan déglu ñu naan Moustapha Niass mu ngay wate ji di déglu ñu naan Macky Sall Ablaye Wade mu ngay wate ji te ñu dem ba doomu Saloum doomu Maabo buy wate ji ba may dégg ay rajo yeeg télévision yi naan kañ la Aliou Tyson di wate ji loolu sant suñu borom la lu ma yàlla lu ma mayee lool moo tax maa ngi sant yàlla daal li askan wi yaakaar ci man yàlla naa def lu ko ëpp yàlla rek moo mën a def moo mën a jàppale jàmm loolu damay xaar ba ngoon ma doog siy wax parce que nag kuy wut moon am rek ngay ñaan yàlla waaye li xew ngoon suñu borom rek ko am benn jàpp. en tant que honorable yi jaar na oh, man loolu du ma koy xool man loolu ak yàlla gi rek lay xool li yàlla yi dogal ngoon loolu rek lay xool kenn kii falu suñu borom dogal na ko bu yàgg. Ah, man loolu lay sama dernier mot mooy ñaan yàlla ñu ñaan doog jàmm. ma dem maa ngi dem nii Fass Muxtaar ngoone incha allah yàlla mën naa dogal lu rëy yàlla ko yàlla dogal